daanaka awma ci baat awma ci lu may wax euh, rawatina nag bis bi nga xam ne dañoo am kilifa goo ne moo moo ko yor muy sëñ Abo moo tax daanaka lu mel ni man li ma daan wax rek mooy déglu sëñ bi bu waxee rek mën ne askay wala ma fa tasu loolu moo ciy sama mbir dafa fekk nag sëñ Fallou moom ma ne su ko tudd nga di ci joxe ngànt loolu man sañu ma ko loolu nga tax may wax waaye bu doon loolu eh, li may li may li may li may li li may def mooy eh, déglu samay mag rek ak di leen xool buñ waxee ma ne ma ma ma ne ma defal ma def buñ buñ buñ joxañee ma ma jëm ma ja ma jëm ca fa joxañ ba nekk rek Euh, loolu rek la euh, bu ko defee nag léegi bis bi moom sëñ Fallou day koo xam ne ki ku doy waar la te loolu ñu bari xam nañu am na ñoo xam ne ñii xëy na fekke wuñ jamono yi sëñ Fallou waaye ñoom it dégg nañ ko ak mbaaxam euh, ak li nga xam ne loolu na ko wane ci diggante rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni mu ni mu ni mu ni mu wuyee ci ci sunu borom mu ñu di ko wax rañaan bi lam ci wax loolu ñëpp dégg nañ mooy mooy bis bi rek mooy mooy mooy mooy ñaar fukki fan yi juróom-ñaar rek ci ci ci rajab bi ñu dina xamal ne daal eh, bis la boo xam ne <laughs> bis bu mat a fonk la lu ne ci lu baax mënees na ko ci amee ci xéewal ak tuyaaba kon nañ ko fonk rek te ànd ceeg yar ak teggin muy ñëpp nag ñi koy seq ndax ñi ko seq ñëpp kenn ku ne am na wet goo féete kenn ku ne wet ga nga féete nag nga rafetal ko te defar ko bu baax bu nga xam ne li nga ci war a jëlee ci lu baax ci bis bi dana si ci yow ndax bis bu mel nii kat ku ko màggal war a màggal ko suturaal ko euh, ngir yàlla yàlla mën na la dimbale bu baax kon nag maa ngi ñaan daal nu yegg ci ak jàmm te euh, doxal ko ni mu gën a rafete ci jàngum alxuraan nag ak njàng xasaayid yeeg si kër yeeg ak toggaayu jëkk yi loolu lañ loolu rek laay laay wax nit ñi bu nañ nañ ko fonk bu baax rek ñu ko defee daal ku ko ci def daal doo ko réccu ndax la muy jariñ da ko gis foofu nag laay yemale samay kàddu ndax ni ma la ko waxee rek ab dëkk daal boo fa nekkee te te <laughs> ñi la fa yi li fi bari da ngay xam fooy yem rawatina nag kilifa gu mel ni sëñ Muntaxa bi nga xam ne am nañ ci yaakaar lool ci moom lool dañ ko amoon lu jiitu muy muy muy doon sëñ Tuubaa fii ci der bi waaye bi bi bi bi mu doonee sëñ Tuubaa nag dafa dolli ko moo tax ñoo ngi ñoo ngi am moom loolu yaakaar bu baax te di ko ñaanal mu yàgg fi lool euh, euh, li may wax nag ñun dama damay wax ne buy wax am wala fii sax dañ koy wax naan naan naan naan man sikkim laa gestu ma yóbbaale nun nun ay si nun nun sikkim lan sëñ boo mooy gestu moom mooy gestu sëñ boo gestu la tudd fu fu mu gestoo rek yóbbaale nu nun ñi nun ñi nun ñi sikkim moo tax bi ba ba bi toogee mu daldi dem rek eh, joxe léppam joxe waale na nun ñëpp sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Muntaxa mooy sëñ Tuubaa ci nun nu euh, topp ci gannaawam rek di ko xool di ko déglu nag ñu leen di ñaanal yéen tam baax euh, ba ba ba li li leen tax a jóg muy tasaare lu baax ngeen am ci li ngeen bëgg yàlla defal leen ci barke defal leen ci xiiwal bu baax a baax a baax a ngi nuyu ñi fi teew ñëpp nga xam ne ñoom yàlla dogal ñu ñu ñëwoon fi tey rek fekkee lii maa ngi leen di ñaanal baax ñoom itam te di leen eh, dénk itam ne ñoom ñëpp nañ màggal si rek ah kuy wuti lu baax de da war di def lu baax boo bu fekkee ba nga ba nga ba nga am lu baax la ngay wuti euh, màggal gi moom gis nga ni nit ñi di def Euh, fu ne nit dana fa jóge ñëw Touba te sàkk lu baax donc moo ko yëkkati kuy sàkku si lu baax nag dangay ngay ànd ak yar ànd ak teggin di jàngal xuraan di jàng xasaayit di sikar dégg ko euh, ñi ñuy fekk si it noonu la ñu war a def noonu la ñu war a mel ndax ñi ñëw gannaaw lu baax a leen euh, andi. ñu ñu fiy fekk lu baax lañ bëgg ñoo ñoo ñooñu daal defe buñ buñ fu ñu dajee war naa war lu baax rek fa war a moo fa war a am ay ngóorgóorlu sëfoor yi waxuñu ne euh, ab sëfoor walla walla borom oto war naa wut otoom ngir liggéey ngir am ca dara ba noppi nga naan ko bul bul fayeeku loolu kenn sañu ko waaye nag bu bu buñ mënta bàyyi fa fayu bi ñu ñu ñu ñu ñu ñu wàññi tuuti wala ñu yemale ko boog fañ fañ ko daan yemale rek yokk gi daal moo moo moo moo dul yoon euh, bu ko defee sëfoor euh, yëpp ànd ak yar ak teggin euh, daw ndànk rek oto moom dafa dafa bari bari doole te yi ko téye bariwul boo ko boo ko tegee loo xam ne lii yow mi ko yor sax attanoo ko day mujj def loo xam ne lii doo ko ko sant xam nga ne ñuy accidenté ñëpp accident yi sant ñu leen ko waaye ñu oto yee koy defal seen bopp ca nañ koy ca nañ leen di yore nag ñañ leen di dawale nañu dawal ndànk rek te wàññi paas yi te yar emprunté yeeg ñëpp ñu yar leen ñu ñu ñu am ñu am teggin ndax dëkk boo xam ne bii gis nga fi ne màggal gi bu ñëwee avion yi dañ leen di wàññi wàññi saxaar yi Eh, te yooyu war a gën a seer ndax ñoo gën a ñoo gën a jafe gis nga ñuy màggal si sare yi ñuy dox ak seen am na ñoo xam ne sax duñ jaar ci yoon far dañuy dañuy jaar ci mbooy gi làkk fi Touba rek ñu ñu ñu ñu ñuy féetal loolu lépp nag ki fi nekk gannaaw jar na ko moo leen ko jaral ñi ngi leen di andi it war nañoo xam li leen li leen dëkk bi jaral sëñ Mour Bousso Dieng mës na ma dégg mu wax ne Euh, buñ masaan di lim dëkk yi gën a ñàkk ci àdduna màkk ci lay bokk te dem nañoo dem dem ba bu ñuy lim ñi gën a woomal ñoom ci lañuy ñuy bokk eh, sëñ Modou ne ku ku ku baax ka tëdd ci seen suuf sa rek moo moo leen moo tax mu ne kon nun itam bun buñ amee ku baaxe ni ki tëdd ci suñ suuf si eh, bu yeboo nuy séentu ne la dal waa Makka dana nu dal loolu bu ko sëñ Modou waxee ñëpp dégg ko war nañoo xam ne kon ki tëddi suñ suuf si ku mat a war maal la ku mat a màggal la ku mat a màggat si la itam waaw jërëjëf